dama la wax ne la alxuraan man dafa am lu ci doxé moy lan yàlla dafa wax ne téré bi téré bu leer la man ma gëm ko yàlla ne téré bi téré buñu faram faram-fàcce la ma gëm ko te loolu tëbuma ko gëm ndax lenen la gëmoon di dem ci alxuraan di fekk di fa fekk ay wax yu weddi ay wax yu ma gëmoon te tëbuma it ne alxuraan rekk ay delluwaay bi ci njëlbeen gi ku déglu wax yi ma doon wax 2017 dama naan bépp wax boo xam ne wax nañ ko mu dëppook alxuraan wér na te dégg naa sax ngay wax yonent bi li muy wax ci alxuraan lañ koy delloo loolu laa doon wax ay 2017 li tax ma dem ba ne delluwaay bi téere bi rek la damaa doxaat ci biir téere bi ba gis loo xam ne sax maanaam saxalul leneen lu du téere bi xaaral ma ñëw kon wuute gi foofu la nekk wuute gi mu ngi ci ki gëm li yàlla wax ne téere bi leer na téere bi da ko faram fàcce mu gëm ko ak ki ko gëmut